société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen di seen revue de presse dalee nag ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gi di Rewmi Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu Ousmane Sonko njiitul Pastef maire bu Ziguinchor bu ngeen xëyee ñu ne jàpp nañu ko ma nga bu mu leen bett journal bi nee li am ba desale léegi te ñu jàpp Ousmane Sonko loolee moom lu leer la Rewmi ko xibaar moo waxoon ne ko teg ndax décision de justice ba de sax maanaam gars yi jamono ji ñoo ngi préparé bu baax a baax ñoo ngi wàcc ngir jàpp Ousmane Sonko fekk ko ci kër góor gi réew mi quotidien moo ci xëy yéen kaay gi di xëy du ñu xibaar naan ñu bu doy waar bu yéeme moo am ci ministère bi ñu dénk wàllu miina ndax lu toll ci cent millions scandalu cent millions moo am ci ministère bi ñu dénk wàllu miina yéen kaay gi ne nag ku ci xën mu njëkk mu ñu fekk fa Malick Sarr bu Benno Bokk Yaakaar yaakaar ci élection présidentielle 2024 yi nga xam ne moom la ñu dëgmal nee na Benno bu ñu booloo mën nañoo gañee waaye bu ñu tàqaliko lambaay mën naa ñaaw te ginnaaw wax nañu Macky Sall jox nañu la carte blanche Macky Sall ku mu tànn ñëpp ñoo ci a ànd waaye jox Macky Sall carte blanche ba pare daal di jóg di contesté loole yéenuwul maanaam moom Malick Sarr daan nay wax ne Amadou Ba maanaam candidat bu baax la profil bu baax la te Ousmane Sonko mënut a xam ne moo ne bu bokkul ci élection yi maanaam élection du yàq élection présidentielle 2024 du Ousmane Sonko moo ko mën a yàq yéen kaay gi de la Tribune nee na élection présidentielle 2024 yegg waaye lu ëpp fanweeri ci ay nit ñoo xam ne dégg nañu leen ñu daal di ne ay candidat lañu journal bi nee am na ci ñoo xam ne ay farceur lañu maanaam ñoo xam ne caaxaan moo leen tax a jóg am xam ne ay profiteur lañu am na si nag ñenn ñoo xam ne maanaam ay patriote lañu maanaam ñoo xam ne ñoom leer na leen nit ñi am nañu capacité bi am nañu dayo bi nag yore réew mi na en tout cas gudd gàtt consensus ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar dina nekk loo xam ne dina jafe loola ndax bëri na ci ñoo xam ne dañoo am ay ambition personnelle la journal bi di bés bi nee na njiitu réew mi di président Macky Sall nekkul ci réew mi waaye Moustapha Niass moo koy régleel réew mi rawatina di ko jéem a régleel candidat yi nga xam ne maanaam ñoo am ci biir Benno Bokk Yaakaar ndax Mohamed Boun Abdallah Dionne journal bi nee na recevoir nañu ko déglu ko Moustapha na ko waaye nag journal bi nee na Mohamed Dionne

ñu ko bëggoon a modifié te bu ñu ko modifié woon a njiitu mi dafay am sañ-sañ di tas assemblée nationale saa su ko neexee loole nag député yi ñoo lànk ba tëdd sa naaj wa bëri ñoo xam ne ŋàññi nañu ko dénoncé nañ ko njiitu réew mi di président Macky Sall deltu na ci ginnaaw way yéene kaay gi di Sud Quotidien nee na ñi nga xam ne ñooy député yi ñoom seen bopp ñoo lànk bañ a dee ndax bu ñu àndoon ci modification article 87 loolee mooy seenug dee journal bii di réew mi Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu député yi nga xam ne ñoo bokk ci coalition Yewwi ñoom ni ki xabaar yi nee nañu lu jëm ci wàllum révision révision constitution bi ñoom ànd ñu ci benn yoon ba pare di woote lu jëm ci wàllum résistance ñoom nag ñaawlu nañ bu baax a baax Birame Souleye mi nga xam ne jamono ji man ngi ci mandat dépôt maanaam ma nga ca kaso ba ndax nee nañu Birame Souleye Diop kenn amul sañ-sañ di ko yóbbu kaso ndax loolee violation article cinquante la bu constitution bi ak ba pare li nga xam ne mooy règlement intérieur bu assemblée nationale député Yewwi Askan Wi ñoom nag nee ñu deux poids deux mesures yi nga xam ne moo am ci réew mi loolee a jeex maanaam kumba am nday moo am ci Sénégal ndax ñi nga xam ne ñoo ànd ak Macky Sall dañuy saaga nit ñi te dara du leen ci fekk ñi ànd ak Macky Sall dañuy wax nañ leen rey diw te du leen ci fekk loole la ñu mooy lan yéen kaay gi du l'observateur nee na alxamis bi nga xam ne moom la ñu dëg ma la député yi woo nañu leen ci ab plénière ci assemblée nationale ngir nag ñu jéem a lijjanti mbiri Karim Wade ak mbiri Khalifa Ababacar Sall journal bii di enquête nee na fin de polémique lu jëm ci wàllum article coow la jeex na yéen kaay gi du l'observateur nee na El dépôt journal bi nee na bi ñu exploité nag téléphone El Malick Ndiaye maanaam fekku ñu si audio bi nga xam ne moom la ñu koy tuumaal yéen kaay gi de Le Quotidien yor yor nee na étudiants yi nga xam ne ñoo nekk ci université Assane Seck Basse Ziguinchor ñoom nag mer nañu ba maara détaillé benn semaine la ñu fas yéene dem ci ab grève la ko waral mooy dafa am ay travo ay liggéey yoo xam ne 2015 la ñu ko commencé woon ci université ba ba léegi mbir ma demul cëng dikkul mbay laara yéen kaay gi nee na moo tax étudiants yi démb taal nañu ay pneu yéen kaay gi di Sud Quotidien nee na bu dee am na ñenn ñoo xam ne ñoo mer ba maara ditali mooy médecin yi nga xam ne ñoo nekk ci hôpital régional bu Ziguinchor ñoom 48 heures la ñu fas yéene dem cib grève la ko waral mooy yore nu bon wi nga xam ne moom la ñu yore boobu la hôpital yéene kaay gii di Vox Populi xëy duñu xibaar naan ñu am na ab faux infirmier boo xam ne teg nañu ko loxo koo xam ne amul autorisation administrative ngir nag yëngatu ci lu jëm ci wàllu médecine journal bi nee na waa jooju nag jonn la 53 ans la am ab clinique la yor ci Daaru Xudus gars yi teg nañu ko loxo biñ tabaski ba pare la pikiir ki nga xam ne moo ñëwoon ci clinique ba ba mu ko pikiiree waa ji nag fa la jógee xàmmeetul bëccëg xàmmeetul guddee hôpital Matlaboul Fawzayni fa la mujjee ñàkk bakkanam waaye nag moom jonn moomee jamono ji ma ngi ci garde à vue yéen a kaay gi délibération xëy duñu xibaar naan ñu président Mbagnick Diop njiitul MEDES daw na nag wàllu nga xam ne ay jeune entrepreneur la ñu nekk ci région bu Ziguinchor journal bi nee na loolu lépp ma ngi jëm ci relance bu jëm ci wàllum tissu ak social bu Ziguinchor journal bi nee na Cheikh Tamba mi nga xam ne mooy président Léandor moo doon def ab conférence presse wax na ñoom lan moo tax a ñu daal di choisir président ba ñu Diop ndax nee nañu gis nañu engagement bi nga xam ne am na ko ngir soutenir ndaw ñi ngir jàppale xale yi rawatina ci lu jëm ci wàllum liggéey ci conférence de presse la ko daal xam xamle yéen kaay gi di sunu lamb xëy duñu xibaar naan ñu Gris Bordeaux mi nga xam ne moo fi blessé woon jamono ji nag wér na ndax déposé na ab certificat guérison ci fi nga xam ne mooy CNG ab këyit boo xam ne wan na leen ne jamono ji wér na